حبيبي يا محمد كن سبيبي وأجرني من ليبي إن أوزاني في القلب يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala wa asxaabihi wa xulafaihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu santee yàlla sunu borom julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd di ko nuyu mbooleem téléspectateur boo xam ni jamono bi yaa ngi jàkkaarloo ak télévision Futurs Médias di nuyu alxalifatul amma Serigne kër Sy Mansour ñaanal ko yàlla mu gudd fan lool te ànd ak wér nuyu Serigne Moustapha Sy bu Serigne Abdoul Aziz Serigne Habib Sy Mansour Serigne Maodo mbooleem njabootu maam Cheikh Al Hadj bi yëpp ñu ñaanal leen yàlla sàmm leen te aar leen ci darajey sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga ci ndigalu xalifa bi wax ni ren na ku nekk gàmmoo këram télévision Futurs Médias fas yéene ànd ak yéen wéttali konte ak yéen ci lan waxtaane sayduna muhammad guddi gu nekk waaye nag ñu fas yéene amal plateau spécial boo xam ni ñu ngi ko war a siq ay borom xam-xam yu mag imaam Ousmane Diouf duñu leen ko présenté waaye itam Serigne Abdoul Aziz Kane moom itam duñu leen ko présenté ñoom ñëpp nekk ay borom xam-xam nekk fii ci xadratul malikiya ñu fas yéene waxtaane tey thème bu am solo li nu bëgg a waxtaane mooy lan mooy Seydil Xaaji Malik ci boppam naka la tabaxi sunna mais duñ ci yem nan la dundee sunna moom Seydil Hadji Malick mais nan la jàngalee sunna itam ci réew mi loolu la ñu bëgg a waxtaane incha allahu taala xam naa damay dalal invité yi bàyyi leen ñu nuyoo ñu dellu si waxtaane tam bi nga xam ni incha allahu taala moom la ñuy waxtaane imam Ousmane Diouf ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara ñu ngi am mbégte ci bekk ak yow plateau bi nga xam ni moom la ñu amal tey fii ci xadratul malikiya ñu bàyyi la nga nuyoo imam Ousmane Diouf aousubillahi samil alim min alcheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi yëkkati suñu kàddu muy kàddu yu nuyoo ak ziyaara ak ndokkeel di ko ji di ci jiital nag suñu wayjur suñu baay suñu xalifa suñu sëriñ maulana Seyd Aboubacar Sy Mansour yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla aar ko ak ay njabootam yëpp rakam ju baax ji topp ci ginnaaw moom Maulana Cheikh Alhaji Malick si Maodo ak mboolem usral malikiya ko ku ci bokk ak foo ci bokke ak noo ci bokke yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen di nuyu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo nuy seetaan fii ci Futurs Médias di nuyu Oustaz Mouhamed Fall mi nga xam ne tabaarakallah moo ñu dalal ci émission bii nga xam ne dañoo war a waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak njàngaleem Cheikh El Hadj Malick tabarakallahu taala ñoo ngi wax ñoo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf imaam Ousmane Diouf bég nanu ñu ngi lay fay nuyoo yow itam di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la bu baax ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaam Abdou Aziz ñu ngi lay nuyu aoudu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim wasalaatu wasalaamu ala xaatimi alanbiyaai walmursalin wa ala alihi wa saxbihi alxurri almayamin wa man tabia aathaarahum wa saara ala nahjihim ila yowm ddin Cheikh Mouhamed Fall waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay delloo nuyoo waaye itam di sof suñu nuyoo ci sa nuyoo ginnaaw ba ñu musloo ci bakkan ak cheytaani tàmbali suñu kàddu ci turu borom bi subhaanahu wa taala sant ko moom mi nga xam ni tabaarakallahu lu am moom la ndax euh, mayoon nañu ñu fekke daaw fekke ren kon loolu rek jar na sant ko fa tabaarakallahu jiital ci suñuy nuyoo nag ak suñuy ziyaara ci suñu wéyjur comme ni ko Seydina Ousmane waxe léegi suñu sëriñ suñu xalifa cheikh Seydi Aboubacar Sy bu cheikh Seydi Mouhamadul Mansour bu cheikh El Hadj di ko ñaanal yàlla mu yàgg lool ci kanamu njaboot gi ànd ko ak mboolem usra malikiya dhukuran wa inasan sigaran wa kibaran eh, tabarakallahu di la nuyu di nuyu euh, kilifa euh, gi nga xam ni lii lépp bu amee moom la ba ci directeur yi ak directrice yi ak mboolem ñi nga xam ni personnel la buy liggéey ci euh, tabarakallahu ci seen euh, euh, télé bu am solo bi di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala liggéey yi leen tax a jóg ak itam fes fesal gi ngeen di fesal li mag ñi li fi mag ñi bàyyi yal na yàlla taxawu leen te sàmm leen te aar leen te yeggale ko fa ngeen ko bëgg incha allah. jërëjëf imaam Abdoul Aziz nañu itam ci nuyoo bi macha allah yal na yàlla barkeel la. dañuy daal di rek dugg ci waxtaan wi nga xam ne moom moonu fi tax a daje tey waaye balaa ñoo waxtaane Seydil Hadji Malick ni mu dundee sunna wala ni mu jàngalee sunna wala ni mu tabaxee sunna ci réew mi li nu bëgg a waxtaane imaam usmaan question bu njëkk bi mooy ana kanay Seydil Hadji Malick ba pare parce que bari na ndaw loo xam ni sopp nga Alaaji Malick dégg nga Alaaji Malick mais ba tey comprendre oo kanay Maodo mm-hmm. léegi nag première question bi mooy kan mooy Seydil Hadji barakallahu fi Oustaz laaj nga laaj bu am solo bu yomba tontu waaye bu jafee tontu mooy bu yomba tontu mooy boo ne kan mooy Cheikh Al Hadj mhm. mooy buñ ko wax dañu naan Seydi Al Hadj Malick ab sénégalais bu tudd Malick Fawad Wele mhm. sant si ni yàlla baaxee ay nit yàlla loon la ko yàlla baaxee mu bokk ci famille bu baax waaye famille ba la muy baax baax doy lawul mbaax ga mu jàng li doomi soxna mu jàng mu jàng ko ba xam ko yëmut ca loolu mu jëfandikoo ko ba bu ñu doon wax ma monsieur Alhaaj Malick dañu naan fi mu juddoo gaaya ba fi ñu ko dencee teewoon 1922 amul lum jëfandikoo lu ñu mënta waxtaane ci rajo wala ci télé wala ci tànt allahu akbar benn kéemtaan dong la am mooy fexe na fi mu dunde ba fi ñu ko robe ci bàmmeel jëfandikoo lu ko diine jame lu ko sharia ay jame boo deful xar baax bu ko bu ko kenn mën a tuumaale mhm. kon muy nit la koo xamante ni bi mooy kenn la model la boo xam ne yonent bi la tegan ci kanamam li yonent bi def mënta def lépp waaye lu mu ca mën def na ko ca yokkul wàññiwul kook mooy Mawlaana Cheikh Al Hadj macha allah mu mel ni résumé nañu Seydil Hadji Malick dégg ngeen ni mu ko waxee Alaaji Malick daal mooy koo xam ni dundam gépp amoo loo koy jamee ci charia kon yaakaar naa présenté bi leer na koo koy Seydil Hadji Malick bàyyi Serigne Babacar Sy imaam Ousmane euh, imaam Abdoul Aziz imaam Ousmane wax nañu kanay Seydil Hadji Malick li nu bëggoon nga ñëw ci mooy lu tax Alaaji Malick woote gàmmu tabaarakallahu Cheikh Mouhamed. Mhm. Euh, ñu ngi lay sant bu baax ci. Euh, doxalin bu rafet bi waaye tam di sant bu baax tam suñu mbokk mi mhm. di wax rek ni bu ñu bëggee wax Cheikh Seydil Hadj Malick radiallahu anhu lu tax bi ñëpp di woote kenn ku ne am loo jël teg ci sa kanam mhm. moom mu taamu wooteel yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bi nga xam ni ci la ganee àdduna mhm. te ñu bari dañuy fàtte ni ci bés boobu itam ci la génne àdduna mhm. ñu bari du ñuy bàyyi xel loolu waaye gis nga sallallahu alayhi wa pour wax la mhm. li tax Cheikh Sidi Hadj Malick tànn bésam boobu responsabilité dafa garaaw képp ku jël responsabilité woote te amuloo addil la bu leer booy teg ba bu ëllëgee boo taxawee ci sa kanamu boroom di ko rendre compte li taxul mu bind la ak la nga woote woon lu taxaw nga woote ko boo amul dalil bu leer boo ko jox su boobaa da nga am gàcce ci sa kanamu boroom mu gis ni nag moom li mu gëm te dëggal ko te wóolu ko moom Cheikh Sidi Hadj Malick mooy lu waay di wët bëgg koo am ci yàlla ci yonent bi nga koy jaare sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba yëg ni rasulullahi mooy buntu bi nga xam ne ku bëgg a àgg ci yàlla moo ci moom ngay jaare moo tax li lay dëggalal li tax mu taamu bésu gàmm mooy la mu wax fële ca jeexitalu euh, xilaas mhm. ni wa laysa lii amalun alxaaka yaa amali si wal mahabati wa taadimi wa salami loolu moo lay dëggalal Seydi Hadji Malick li tax mu jël bésu gàmm woote ko te mooy li mu wax ni ëllëg gisuma lenn loo xam ni danaa ko teewal ci sama kanamu boroom ma cay sagu wala ma cay amee ndam lu dul sama cofeel ci rasulullah te nit na koo soppul doo ko wutal bés mm-hmm. amaat na bu wutaloon boppam bés bu ëllëgee njabootam yi bu ñu fi jógee dañ nañ leen wutal bés mais doo dégg mukk Seydil Hadji malik ak njabootam kenn ci ñoom jóge fi ñu wutal ko bés lu ko waral mooy roy gi mu roy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ni raxul sunna bi benn yoon moo tax nag mu jël guddeem gi nga xam ni moo gën ci guddi yi gannaaw guddik laylatul xadr te sax am na borom xam-xam yu wax ni moo gën a tedd guddik laylatul xadr hmm. lu tax ñu ni bu dul woon guddik gi yonent bi ganee àdduna kon guddik laylatul xadr du am bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ci la laylatul qadr amee moo tax ñi wax loolu ñoom ci loolu la ñu sukkandiku ba jàpp ni guddi gi rasulullahi ñëwee ci àdduna moo gën ci guddi yi hmm. loolu nag bi ko Cheikh Al Hadj Malick mu teel a jël nag ay responsabilité ci woote gi daal di wax nag bi mu koy woote mu ni ala azimu laylal wiladati waaye xisbatan yow nag boo koy boo booy ñëw di wuyu si wala boo tey sëriñ bi jël ay responsabilité am ni nañu def nangam mhm. nangam jooju yow mi koy dégg yow mi koy déglu di déglu kilifa gi tey war a bàyyi xel kilifa gi mooy nga yëg ni Seydi Hadji Malick xisbatan boobu la la soxla ci yow mhm. mooy yow mi ta jóg di ñëw ti Tiwaawan sàkku tuyaaba rek moo lay tax a jóg mhm. comme sàkku tuyaaba nag mooy tax nga jóg dafay jaadu nag nga def ko te bañ ko defee comme na mu ko waxee ci jeexital ba isa lam yakun naxwal xaraami udulu te mooy nga fexe bañ a jeng jëm ci fànn boo xam ni tabaarakallahu da lay jëmee ci musiba hmm. loolu moo tax tabaarakallahu Seydi El Hadj Malick tànn bis yëpp bàyyi fi bis yëpp jël benn bés rek ni muy bésam muy juddug sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf euh, imaam ni mu ko waxee bi nekk di woote bésam moom Seydi El Hadj Malick moo taamu ni li muy woote mooy màggal juddug sayduna muhammad ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami udulu imaam Ousmane Diouf dañu wax ni Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu dafa dundal sunna mais bari na kuy dégg sunna mais xamoo lan mooy sunna ñu bëggoon nga leeralal ñu lan mooy sunna barakallahu eh, ne Cheikh Alhaaji dafa dundal sunna mhm. sunna mooy yoon wi nga xam ne moom la yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sunu texe mhm. joxoñ nu ko ne wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee jub sama jaam baa ngi nii bu ngeen ko toppee jub est-ce wa in tutiuhu ini charte mhm. waaye jawaab ba muy tahtadu <laughs> est-ce que wa in tutiuhu waawul jamaa gu ànd ak damirul ñaari damir waawul jamaa mooy nun demir gi yonente ko moom wa in tutee bu ngeen toppee sama sang bii muy Muhammad sallallahu alayhi wa lan tëhtadu mooy jawaabu mooy jawaabu in achartiye boobu kon mënoo jubte ak toppoo Seydina Muhammad sunna mooy ñeent moo am ci sharia al shariatu moo am ak al musharriu al musharriu lahu al musharriu ilayhim aha sharia mooy li yàlla jox muy code de la route bi nu war a jëfandikoo suñ dund buñ ko defandikoo mu baax adduna baax alaxira mooy charia kan moo teg kot dara du yàlla mi nga xam ne moo xam jaam mi alaa yaalamu man hu man xalaqa huwa latiful xabir yàlla mi xam jaam rek moo mën a teg code boo xamante bi bu ci jaam tënkoo dina texe adduna ak alaxira mooy mooy almusharia almusharia lahu mooy ki yàlla jox ci moom code bi ne ko demal jotti leen ma ko ne ma ci doy mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ko yàlla jox mm-hmm. wa huwa alladi tama maanaahu wa suratuhu summa stafahu habiban bari un nasami da koo dafa koo segg ba mat mu soog ko koo jox mooy mushariu lahu al mushariu ilayhi mooy ñun ñi nga xam ne noo ko war a jëfandikoo nga xam ne sunu sens la laqad manna allahu ala almuminina ala almuminina nga xam ne nun sunu teraanga la sunu oh, sens la sallallahu muy ñeent yooyu alchariatu wal mushariu mhm. wal mushariu lahu wal mushariu ilayhi muy noonu yooyu nag boo ko boolee muy alxuraan ji doon wàcc Seydina moom diiru ñaar fukki at ak ñett ak sunna bi ko yàlla jox nga xamante ni bi yàlla moo ne jox naa ko alxuraan jox naa ko lu toll ne alxuraan te mooy sunnaam te borom xam-xam nee na yonent bi lu mu xaraamal moog li yàlla araamal ñoo tolloo yonent bi loolu lu ñu dajale nag min aqwaalihi wa afaalihi wa tasarufaatihi wa iqraaraatihi mooy sunna li yonent bi def wala mu wax ko wala ñu def ko ci kanamam mu saxal ko wala boog mu noppi mooy sunna yooyu nag alaaji Malick dafa xool la ci gën a am solo mu jël ko loolu mooy sunna bi nga xam ne moom la si alxaaj Malick jël ndax min kulli wasfin hamidin xaasa afaala tafdilin mhm. kan rajaul baraya yow ma mustahimi maolaa ne si alxaaj Malick sunna boobu la jël yonent bi jëfandikoo ko mu waxan sahaaba yi ëllëg ku bëgg a dem aljana dana dugg ñu ko ah aljana ku ci bëgg te dugg mu ne xanaa koo xam ne nangu nga lima ma yàlla yónni bëgg ngaa dem aljana waaye ku gàntal li ma yàlla yónni bëggoo dem aljana mhm. Mawlaana Cheikh Al ma Malick bi mu xamee loolu nag ci la jàpp ne kon sunna dundal sunna si naa moom ci la nekk mhm. Mawlaana Cheikh Al ma Malick kon nga xam ne Mawlaana Cheikh Al Hadj Malick li muy def lu mu xam la waaye bala ñuy wax loolu sunna bu ñu waxee càmbar sunna ba pare du nekk aw yoon woo xam ne da nga ciy tegoo mhm. day am looy xam yonent bi li ko yàlla yónni muy alquran jox ko sunna ndax wa maa yantiqu anil hawa mhm. in huwa illaa wahyun yuuhaa yàlla moo ko ne loo wax noona la ndax doo wax ci sa bànneexu bakkan loo wax rek maa la ko dicté binaaw bu Cheikh Alhaj Malick bëggee tatbiq sunna daf ko jàng téere yi mhm. gis ko fi gis lu mu bari bari bari xam-xam malaaka wàccul jàngal ko Seydina Mohamed moo am sansu yàlla yebal Jibril mu koy jàngal waaye ku dul Seydina Mohamed da ngay jël sax sa téere dem ci borom xam-xam ju tëralal la mhm. alaaj Malick nag ruus ruus noo wax sil sa fi mu jànge di woo ko di woo ko jàngal di ko jàngal di ko jàngal mhm. nu ko wax ba mu jeex mhm. ndax ci ay nit la jànge ci ay tiire la jànge ginnaaw bu mu jàngee ba xam ba xam sunna Seydina Muhammad rek ndax loolu la bëggan munu ko munu ko roy te xamu mhm. moo tax mu jàng funu na elmi alxuraan bu rafet ak laaju ci alxuraan jàng al ulumu ashariya min fiqhin wa tawxidin wa usulin lu ci nekk daf koo jàng lu ne da cee jàng ba géeju ci am kenn mënta tuumaal alaaji Malick amul xam-xam loolu moom kenn ko wax. mais am na ñuy wax ne alaaji Malick amul école. waaw loolu ñooñu moom euh, loolu kenn du mais lan nga mën a génnee ci xam-xamu Seydil Hadji Malick loo xam da nga naan lii branche bu jafe la ci xam-xam mais Maodo daf koo peeg. Euh, euh, xam nga taalif côté bu ne Seydil Hadji Malick taalif na ci arut. arut waaw tudde ko alxusna yey ni su la neexee muy bu la neexee muy tasawuf amul fànn bu Cheikh Alhaji Malick taalifut doole na ñu ne Alhaji Malick am na xam-xam ñu ne maam Hadi Touré ca Faas ku ko jàngal oh. Cheikh Alhaji Malick doole na ci xam-xamu Cheikh ñu ne waaw maam Rawxaan Ngom ma ca Paal ku ko jàngal doole na ci xam-xamu Cheikh Alhaji Malick ñu ne waaw sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu maam Alhaji Mansour bal xaw mi maam Cheikh Al Hadj Abdoulaye ku leen jur ku leen jàngal junne Cheikh Al Hadj Malick oh. kon boo amul école kuy am école. wallaahi. Alaaji ma amul école université la am école moo gën a gaaw garaaw université. université la Alaaji Malick am la amul école. lu ko ko may. parce ni ñi nga lim nii ñoo génnee ci université bi. jeex na ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne bii taa bi xam ne mooy mooy ju tudd leen kon Maulana Cheikh Al Hadj Malick li mu jëkk a def dafa jàng al ulumu charia yi yëpp. ba géeju ci. luxal arabi mu jàng ko ba kenn ku ñu ne dañu daan wax naan ma Malick Fawade demoom moom naxu ba bënn na <laughs> te borom xam-xam yëpp dañ koo xaw a ragal. ci naxu ñëpp seede xam-xamam. ndax xam-xam bu bënn mu soog a toog nag xam ne nit mënta jëfandikoo sunna boo ko jàngul mu commencé nag ji jëfandikoo sunna ci boppam. Mhm. soo ñëwee boo waxee muy Qur'an su jëfee muy Qur'an ndax dañoo laaj suñu yaay Aïcha nan la yonti bi mel mu ne yonti bi mooy alxuraan ju doon dox ci kaw suuf la. alaaj Malick fexe bi mu ginnaaw bu mu jàngee ba pare mu jëfandikoo roy yonent bi pour jëfandikoo alxuraan jëfandikoo sunna bu bu doxee nga xam ne kii sunni la soo waxee nga xam ne kii sunni la. Mm-hmm. noonu la def kon Maulana Cheikh Alhaaj Malick dundal na dundal na sunna ginnaaw bu mu ko jàngee bu mu ko xamee ci la commencé nag jëfandikoo ko ci boppam ndax lu ko bëgg niru na nga koy jàng boo jàngul mbiram doo noo koy mën a niroo kon moo tax mu jàng ak chariatul islami ak la ci aju ci baaraas yëpp ba ko. soog ko appliqué ci boppam daf ko tatbiix ak tatbiix mooy appliqué ci boppam. Mhm. Mawlana Cheikh Alhaji ko mooy Cheikh Alhaji macha allah bég nañu lool imaam Ousmane Diouf yal na yàlla barkeel la yaakaar naa leer na ci ñëpp bi mu ñu leeralee lan mooy sunna waaye itam wax ñu Seydil Hadji Malick ni mu defee yitte ci xam moom Alhaji Malick ba am ko ni mu defee yitte ci xam ba am ko moom Seydil Hadji Malick fexe ba xàmmee lan mooy sunna wax ni diiru jamono moom Alhaji malik defu fi lu nu koy xeebee waxu fi lu nu fi xeebee ndax dafa jël ñaari tànkam teg ko ci sunna moom Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu imam Abdou Aziz yaakaar naa ginnaaw bi ñu imam Ousmane leeralee lan mooy sunna ñu bëgg rek nga leeralal ñu alaaji Malick sunna bi nan la ko transmettre ci taalibe yi fexe ba jàngal ñëpp moom alaaji Malick ni muy dundee sunna noonu la fexe ba ñu ko toppoon mu def ci ñoom xam-xam ba nu xàmmee sunna mais aussi di ko dund mhm. nan la ko Maodo partagé ba ku nekk mën a xàmmee lii mooy sunna ba mën koo dund barakallahu Fall Xaaji euh, Mouhamed. Euh, question bi am na solo lool te itam lu jar euh, njaboot gi xam la. donte xam nañ ko itam ñu fàttali leen ko ndax ku doy ni Cheikh Seydi El Hadj Malick amee bés bu mu woote bu mel ni bés bi nga xam ni mooy mawlidu rasul sallallahu alayhi wa mhm. ñu ci waxtaane thème bu am solo bi nga xam ni moom la xalifa bi génne ren ni gàmmu amul waaye nañu bégal njaboot yi ba kenn ku ci nekk foo nekk nga yëg ni li daan am ci gàmmu yëpp te mooy message bi nga xam ni moom lañ daan jàllale ci waxtu yi ñu na jàll ba njaboot gi yëg seen bopp ci ni kër sedd Hadj Malick li fi nekkoon démb tey la raw waaw loolu lu jar a bàyyi xel la ba tax na buñ ne ni mu euh, sun na ci njaboot yi mu yor Euh, fi nga koy euh, gisee rek mooy dundal gi ku dundal ci boppam d'abord ba pare parce que arab dafay wax ni faaqidu shay'in la yu'tihi nit lu mu ñàkk munu koo mayee mhm. nit li muy am rek loolu lay mën a joxe mhm. gis nga Seydi Hadji Malick lu jiitu muy transmettre sunna ni mu ko jëfandikoo li la euh, exemple bi nga ciy jël ci boppam mooy Cheikhul Hadji Malick radiyallahu anhu dund gi mu dund sunna ak dundal gi mu ko dundal li la koy wan mooy dem na ba lépp lu yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam def na ci kem kéemtalaayu kartanam ba def lu mel noona moo taxoon mu dem ba yegg ci ni man dey rasulullahi mën na ma gën a gudd tànk mën na ma ko gën a yaatule waaye du fa mu ko tegoon rek laa koy teg ah, suñu benn baay bàyyi Mouhamadul Moustapha Moudir day wax ni mhm. euh, ki jóg di dox nga topp ci gannaawam te tànk bu muy seppi nga teg sa tànk sa tànk nee na bu yàggee même bu la rëccee bu yàggee fu mu toog nga fekk ko fa wala boog bu agsee nga agsi mu mel ni noonu la Cheikh Al Hadj Malick ànde woon maanaam tegee tànkam ci ci euh, tànku sallallahu wa sallam. Mhm. pour wax la nag ni mu ko transmettre euh, day jël dañuy jëlaat exemple yi mu am ci moom Cheikh Al Hadj ni mu dundalee sunna wan ko njabootam ba ñu xam ni. Euh, moom Cheikh Al Hadj Malick raxul sunna yonent bi benn yoon. li koy wane mooy boo xoolee tey yonent bi sallallahu alayhi ay doomam ñan ñoo ko denc doomam yu jigéen ñi ay saxaabaam. Cheikh Al Hadj ci roy googu mu roy yonent bi ci jëf jooju mooy ay njabootam yu jigéen yi mu am yëpp. njaboot yi yoroon yar leen defar leen ci xam-xam defar leen ci jikko njabootam yooyu la jël jox leen pour wax la ni la maanaam pour roy gi mu roy yonent bi ak itam bañ a rax lenn doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax lenn lu nekk ci yonent bi rek soo ko dàqee mu ñëw kër Seydi Hadj Malick bokk na ca fa tabarakallahu lii wane ba tey euh, ni mu ni mu ni mu mbir mi ci ay njabootam tey da nga gis ku santul si bu jàkka yi jotee moo koy jiite tey jii boo ñëwee fii Tiwaawan muy zaawiye muy muy euh, jumaa yi fi ne ñu santul si lañ fa teg ndax lan fexe na ba la Seydi Hadji Malick jële woon ci la mu amee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaar ci Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu anhu jël na ko fexe ba mu dem ci njabooti boppam yi nga xam ni li mu préparé njabootam yi sant si noonu la préparé njaboot yooyu nga xamante ni fa tabarakallahu ñooy njabooti boppam mhm. loolu moo lay wan ni kon Cheikh Hadji Malick maanaam liggéeyam ak jëfandikoom bi mu jëfandikoo sunna yamu ci rek waaye dafa fexe ba melal boppam ni mu melale boppam mu fexe ba melale ko njabootam loolu itam doy na ci exemple tey doo dem ci kenn ku sant si fekk ko mu toog mu toog ci kaw yow nga bëgg a toog ci suuf duñ ko nangu parce que yëg nañu ni yaag ñoom yéen a bokk benn wàccuwaay doom aadama nga doom aadama lañu te doom aadama li maanaam waxuma sax ay waasoog laneen ak laneen waaye lii war a jër a fonk mooy yàlla fonk gi mu fonk doomu aadama ba ni wala xadd karam na bani aadama wa xamal naahum fil barri wal bahr mhm. kon nga yëg ni nit ki ak loo mën a mel ak maqaama boo mën a toogee da nga war a euh, reconnaître doomu aadama fonk ko bàyyi ko xel ndax li yàlla bind lépp moo ko ci gënal ah. Cheikh ma ni nga loolu la teel a xam fexe ba njabootam yëpp koo ci ne du woote ak taalibe diw mooy sama taalibe wula nangam déedéet moom dafa jël ay njabootam def leen ñuy ay nawleem mu fexe nag ba teg leen ci yoon woo xam ni kenn du ni kii de du njaboot seen xaj Malick képp ku ñuy xool di gis ci yow lu ñu lay xeebe yow yaay askanale bopp ci sa bopp ci sel xaj Malick waaye moom boolewu la ci boppam parce que moom raxul dara sunna yonent bi kon yow mi nga xam ni njaboot nga itam lii jaadu toujours mooy nga fexe ba fi mu tegoon tànkam nga teg fa sa tànk. bu ko defee rek ala kulli xaalin bu ëllëgee la mu am bu koy séddoo bu koy séddalee ëllëg ba nga xam ni demoon na ba yëg ni bu ëllëgee. pas-pas ak yitte bi saxaaba yi defoon ba bu ëllëgee bu yonent bi dekkee ñu mën a dekk ci gën euh, ca gannaaw mu mën a dekk ca gannaaw yu euh, saxaaba yi ca euh, gannaaw bu saxaaba yi dekkee mu ni dana dekk ca seen gannaaw parce que wax na ni mag ñi nettali nañu ni moom moom Seydi Hadji Malick moo ni bis bu yonent bi jógee Aboubacar jóg xulafaawul arbaa yëpp jóg nee na moom moo leen di juróomeel maanaam yitte jooju mu am moom seen xaj maay daf ni daf ni cheikh sama sëriñ waaw kay waaye man Maodo maa leen di juróomeel très bien maa leen di juróomeel mu jéggi fi sëriñam ah, pour wan la ni la yitte moo ko may looloo am yitte maanaam taalibe bi nga xam ne itam dafa jokk ci Maodo dafa war a fexe ba roy ko ci yitte boobu ndax roy ko ci yitte bi mooy boo ëllëgee lañu doon gis ci Maodo di ko gis ci njabootam yi fi bàyyi ba ci xalifaam bii fi teew tey di di di Cheikh Alhaaji Malick mu sotti ndax ñoom ku ku ku ku doon place bi rek doon place bi ku doon place su Maodo doon place bi. Mhm. loolu la loolu la yàlla defal Cheikh Al Hadj ci xam-xam ci wilaya ci tedd nga ci lépp fa tabaarakallaahu kon pour wax la rek ni la Cheikh Al Hadj fexe na ba njaboot yi mu amoon yëpp kenn ku ci ne dem na ba foofu laay daanele dem na ba yéeg benn jour mu dajale njaboot yi mu am yëpp ni leen waaw su ma xëyoon ni leen defi leen nangam lu wuuteeg li ma leen doon digal ci topp yàlla kennal kook ci euh, wiital kook nu ngeen di def. Mhm. ñun ko ah, xanaa seeni la unhu rek. waaye bu ñu jógee nag bu ñu duggee ci néeg ya dellu ca la nga waaw ñaanal la yàlla waaye dellu ca la nga ñu santoon démb. pour wax la ni la kon kooku naxul ay njabootam. te nag loolu moo am solo nag. laneen lu la waay mën a wan te wanu la ni la yàlla rek fi ne. kenn dongu lañu booleel ni nañ ko roy te mooy sallallahu alayhi wa sallam. xamal ni kooka dalay jariñoo wala jariñu la. waaw jariñoo jariñu jariñoo nit ki nag ak jariñ nit ki bokkul Seydi Hadji Malick nag fexe na ba képp ku muy àndal dana la jariñ waaye du la jariñoo kon kooku Cheikh Al Hadj Malick noonu la jëlee sunna fexe ba transmettre ko ci njaboot yi nga xam ni moom moo euh, bàyyi ko ci ñoom. jërëjëf euh, imaam Abdoul Aziz yaakaar naa leeral yi am na solo Seydi El Hadj ni mu fexe ba jàppee ko ay njabootam mooy ku ci nekk daf la def comme boppam. Mhm. dëkk boo dem mu samp fa Seydi El malik Malick ni moom. Mhm. fexe ba wan nit ñi yàlla waaye itam wan leen sayduna muhammad ni ko imaam Ousmane waxee sànq joxoñ sayduna muhammad wax ni wa in tutiuhu tahtadu seydil xaaji malik digul kenn àjjana alaaji malik digul kenn àjjana mais dig nanu nu nuy def ba dugg àjjana mm-hmm. waaw digul kenn àjjana néewul kenn danaa la yóbbu àjjana mm-hmm. waaye fexe na ba wax nu bu nu bëggee dugg àjjana nu ñuy def mm-hmm. ndax moo bind ni yaa man yuriidu jinaanal xuldi yaskunuha faqat di man talabal miftaaxi toxtara kii dégagé na dégagé na responsabilité kon ku ne na ngay def ba dugg àjjana yaa koy jëfal sa bopp mm-hmm. waaye ni ko imaam Ousmane waxee alaaji Malick nekk koo xam ni dafa dundal sunna mm-hmm. mais ba tey ci li ma li imaam Abdoul wax mm-hmm. boo amoon loo ciy dolli connexion bi alaaji Malick yor di ko partagé taalibe yi tey koo xool ci Tiwaawoon gis muy alaaji Malick mu sotti njabootu alaaji Malick fa Seydil Haaji Malick tegoon seen tànk fa la nu teg wàccuñu raay bi darape wuñ mhm. wax naa ba tàyyi ni kër alaaji Malick seetu bu toj la mhm. koo ci for muy alaaji Malick mhm. mais Maodo nu mu nu mu nu mu partagé connexion bi te réseau bi feebulul ku ne am sa connexion barakallah xam nga li tax Maodo mën a réussir ci lu noonu ko defee dafa jël yonent bi rek branché ci boppam branché yëpp. mu wifi bi wifi bi foofu la ko branché. allahu akbar. Maulana Cheikh Al Hadj Malick ku garaaw la. xamal na ne Sénégal danañ àgg ci foo xamante ne bii yëf dina jaxasoo. Mhm. lim jëkk na yitte woo mooy ilmu tawxid ba mu taalif ci téere def ko tuddi ko hidayatul wildaan. ilmu tawxid. taalif ci lu bari nag lu am sooxam na xam ne da shirku yi nit ñi nekkee di bokkaale yàlla. jël sëriñ si bëgg leen def ay yàlla wala ñu jëg leen jëg leen jël waxuma sax yàlla waaye jël teg leen place yonent bi Cheikh Al Hadj loolu la jëkk a xeex bind téere bu tuddee tawxiid def ko tuddee ko hidayatul wildaan ndax shirku li mën a yàq dafa bari. shirku mooy lan mooy bokkaale yàlla. Ah, bokkaale. xam nga laaj nga ma sànq Seydi Hadj Malick ma ne loolu ku na ku neex a tontu waaye ku naqaree joon ndax lépp loo wax lu génn sunna ci Al Hadj Malick loolu yaa ko fent waaye Al Hadj Malick noonu. waaye loo wax lu dëppook alxuraan ak sunna alhaj malik mën na mel noon nga xam ne kon Maodo Cheikh alhaj malik fexe na ba si shirku xeex na ko moom ci këram digul kenn aljan amu ko alhaj malik jaam la ci jaami yàlla yi yoon moo tax muy utiliser baatu abdun lu bari ba jaam la ci jaami yàlla yi est-ce que coobare yàlla da koo xam lool xam xam sañ-sañu yàlla lim xam mooy jaamu yàlla la yàlla sant nga def ko daana wax ne Maodo da ñett yi ku ku ci sax Maodo mën naa am ci yow yaakaar mën na laa dëgëral sa yaakaar lu ne ci sa loxo mu ne ab téere muy jàng. foo jógee mu ne jàkka ja muy jaamu yàlla foo jógee mu ne ca toole muy liggéey muy jàng jaamu yàlla liggéey Maodo ne ñett yi de ku ci sax Maodo amul aljana waaye sañ na laa yaakaar lu yërmande yàlla. allahu akbar. noonu amunu sëriñ bu joxe aljana de. déedéet waaye sëriñ bu lay tegtal foo jaar ba am yàlla am am daje ëllëg ngërëmu yàlla nga mën ca aljana lool la am. allahu akbar kon Cheikh Alhaji man amul aljana digul benn taaleem aljana ku ne Maodo laa gëm moom laa sopp nekk ci ginnaaw Maodo te lu la neex def bu ëllëgee doo ko gis doo am intervention am lim nu jàngal mooy chariatu chariatu sayidina Muhammad daana wax ne cheikhuna Tijaani mooy sama sëriñ ñu ne ko waaw ah. mu ne waaye royu ma ko yàlla royuloo ma ko yonent bi la ma royuloo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatul hasana allahu akbar moom yeewu goog foofu la àgg ni yonent bi dem mooy sama royu waaye moo tax cheikhuna Tijaani nag kurusam laay wirdu waaye royu ma ko de maa roy daal yonent bi laay moom noo bokk nuy roy moo tax fi mu branché réseau bi ñëpp am ñëpp am connexion te kenn réseau faible moo tax fa mu ko branché tax yonent bi moo tax sallallahu alayhi wa sallam yéen bi sa sa sa sa connexion. doo ko ñam de wifi am ko taalibe ñëpp am ko. ku ci sàggan nag mel ni man yow ay sàggan sa bopp waaye Cheikh Alhaji Malick moom won na ndax moo wax ne ala ala la wax ala xarfu taaridin. waaw azimu muy fi'lu amrin boo ànd ak waawul jamaa laylal laylal wiladin lu ja xisbatan mhm. xisbatan ngir sàkku yiw ma li ajlihi xisbatan maf'ulun li ajlihi la ci fi'lu bi passé ak faa'il bi maf'ul bi kon ma maf'ulun li ajli kon wax na ne sàkku sàkku yiw mooy tax ñuy màggal guddi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dégagé na soo ñëwee gàmmu def leen lu gàmmu moom waxu la ko isa lam yakun ndax wala arami odul kon santu la <laughs> ndax moom lu mu taalif da cay bàyyi yàlla xel moo tax mu yitte woon xam-xamu tawxiid yitte woon xam-xamu sharia bi mu dajalee mag ñi leen su ma ñëwoon wax leen ne lu dul lii lu ngeen wax ñu ne ko ñaanal yàlla mu ne alhamdulilahi rabbil su ma del seen wax leen lu dul lii ni ngeen ma ñaanal yàlla waaye kook du dofloo nit ñi. te ñi mu formé koo ci xool El Hadj Malick mu sotti la. jeex na kon Cheikh Mouhamad Mawlana Cheikh El Hadj Malick li ñu koy nawee lan mooy teg tànkam ci sunna wastaqim kama umirta la yàlla wax Seydina Mouhamed na nga jub ni ma la ko digalee. yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqaati wala tamutunna illa wa antum bi mu wàccee saxaaba yi dañoo gëlëb ne na oh. mënuñu ko haqqa tuqaati dafa diis ci nun waaw yàlla teg ci wala tamutunna illa wa antum muslimun laa laa naahiya ak noonu tawkiid bu ànd ak mudaari moo xam li ak noonu tawkiid bu ànd ak mudaari li tashdiid ak tawkiid saxaaba yi ne loolu attanuñ ko attanuñ ko ñu dellu ci yi haqqa tuqaat dëgg dëgg ragal yàlla ñu ne mënuñu ko mu di si ñoom yàlla wàcce waat ittaqullaha ma stataatum oh. moo tax amana rasul bi ma unzila ilayhi min rabbi wal muminuna kullun amana billahi déedéet kullun amana lu tax wal muminuna jam musakkar saalim la waaw kullun kulluhum la war a na doon bu dee ci lugal arabi ndax jam musakkar saalim kulluhum ñoo war a tolloog ñoom <laughs> waaye da koo tafrit kullun mu mu mu tafrit ko mu def ko mufrad kullun amana waxut amano li tax mu tafrit kullan ba pare mu nekk tawkit ci wal muminuna ba pare amana mu def ko tafrit def ko feelu boo xam ne amul damir bu toll kulluhum mooy dimension ngëm yàlla yi tolloowul tolloowul kenn ku ne na sa ngëm yàlla toll na sa xam-xam toll sa dimension noonu la sa ngëm yàlla toll yàlla moo tax ne kullun amana allahu akbar Maodo Maodo Cheikh Al Hadj Malick loolu la xamal nag xam ne dimension yi tolluwut waaye dina fexe ràbb njabootam ci njub rab leen ci ci bëgg yonent bi xool li mu yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala sa li ama amalun amalun alxaaka yaa amali si siwal mahabbati aw ma da jëf ju ma li mu liggéey lépp aw ma jëf ju ma la jox joo xam ne mën naa caa dëgg wax la aw ma itam dara waaye nag am naa yaakaar joo xam ne te bi bu ma ci dëggee mën nga ma yàlla mën na ma ko nangol si wal mahabbati allahu akbar te al mahabbatu mooy daraja bi de qul in kuntum qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum mais dafa bari ay garaat sax loolu lépp ci mahabba rek ci mahabba rek la am moo tax Cheikh Alhaj Malick yàlla yàlla fayal nu ko amiin yaa rabbal lim bëggan mooy njaboot yi tege ci sunna jamono bii nag nun ñii wax nun taalibe yi nga xam ne nun noo toll ci jàng nañ leen gën a bàyyiwaat xel yàlla bàyyiwaat xel yonent bi bàyyiwaat xel sunna Seydina Mohamed shirku yi ñiy wax shirku bari na ci li ñuy wax te bokkaale yàlla am na ñi nga xam ne dañuy bokkaale yàlla dañuy wax a wax a wax ba wax loo xam ne te bi ëpp na nun day Cheikh Alhaji Malick jàngalu nu nu te Seydil Hadji Malick dafa mel ni mësta d'accord ci karaama ak shirku déedéet bokkoon na ci yim gën a bañ xam nga ba muy woo ba muy diir mbokkam fattaqi in rum ilman aw mm. aw aw turidu karamati da ko ne ragal yàlla daal bu fekkee da ngaa bëgg xam-xam jëlal ragal yàlla nga def ko soo bëggee karama jëlal ragal yàlla nga def ko karama yëpp mu ngi ci ragal yàlla ndax Cheikhuna Tijaani moo ne al al istiqaamatu xayrun xayrun min alfi karamatin. allahu akbar teg sa tànk fi la ko yàlla wax moo gën junni junni karama karama mooy lan. di wane ay xar baax ak yu kenn xamul. yoo amul njëriñ. boo ne damay naaw ci jaww ji solo. boo ne damay naaw ci jaww ji picc a ngi ciy ñaaw te yaa gën picc. soo ne damay dugg ci ndox bi jën a ngi ciy dëkk. te du ko wàññi dara yooyu santuñu la ko lañ lañ la sang ittabi maa yu maa wax maa uhiya la yàlla wax ñu tamit toppal li ma la li ma wax yu ci loolu la nu yàlla sant nu topp Seydina nu topp Seydina Mohamed ndax wa in tuti'uhu tahtadu rek lool moo ñu war. sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla joxoñ wa in tuti'uhu tahtadu imaam Abdul Aziz yaakaar naa imaam Ousmane ñëw na foo am solo ni Seydil Hadji malik fexe ba dàq karaama dàq xar baax digal ñu njub fexe ba connexion bi mu yoroon moom Seydil Hadji Malick koo xool ci njabootam même réseau bi lay am amu ci kenn koo xam ni sa connexion faible na imaam Ousmane nag nee na li tax connexion yi faiblul mooy ci naa mu Muhammad lañ ko branché sa alayhi wa sallam mais ñu gis Seydil Hadji Malick digganteem ak yonent bi parce que yaakaar naa Maodo li mu julli li mu woor li mu natt azaka li mu naafi la koo xam ne daa woon nelaw guddi bu ñëppuy nelaw yaa ngi naafi la yor sa kurus yiw yi ci nekk ni mu baree nga ni yow yaakaaroo loolu mu sauvé la ci kanamu yàlla lu dul cofeel bi nga ëmbal sayduna muhammad alaaji malik digganteem ak yonent bi cofeel boobu lan la imaam imaam abdul aziz euh, xam nga sànq mu ngi wax bay wax ci ni Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu euh, dawee yooyu nga xamante ni muy ay euh, shirku ak tabarakallahu ñàkk euh, teg sa tànk ci sunna doy na ci sëkk rek misaal mooy li mu wax ni yow mi liggéeyal sa sëriñ ba waxtu raw la yaa koy jaamu xërëm yéen a yem àtte wa taarikul awqaati li xidmati cheyqihi ka ka abidil asnaami bi duuni miraay pour wax la ni la gis nga sëñ Xaaj Malick. maanaam ngay liggéeyal sa sëriñ tey ba waxtu julli jot da ngaa war a arrêté. da nga war a arrêté. ndax waxtu wi ndax waxtu wi. moytandiku gi mu lay moytandikuloo ngir nga jël sëriñ bi ak maxaama bu mu mën a tege nga koy teg ci kanamu yonent bi waxuma sax damaa jëlale yàlla waaye saxaaba yi rek. ngay jël sa bopp di ko dendale ak saxaaba yi yonent xaj El Hadj fexe na ba daw loolu fexe na ba benn njabootam du dendale boppam ak benn saxaaba ndax moom musu koo def. kon xanaa loolu moo tax mu wax ni ki ñaan tariqa bi. Mhm. ginnaaw bi nu ko ko mayee. mook sëriñ bi ko may tariqa bi ñoo yam ci tariqa bi. li tënk tariqa bi. moo ko tënk mu jeex. léegi nag mais Maodo dañoo may indépendance. dañoo am léegi nag bu boo demee nag gis keneen ku lay woo ci laneen lu bokkul ak lii. askanele boppam ci Maodo xamal ni moom moo jàppe boppam loola waaye du ci Maodo ndax Cheikh Al Hadj li mu woote dafa leer nañ amul lu nit di jame amul lukk nit di jame moo tax yow mii njabootam war nga fexe ba fi ngay teg sa tànk jamono bu nekk buñ ko méngaleeg ni Cheikh Al Hadj ma fi Cheikh Al Malick tegoon tànkam mu nekk benn waaye bu fekkente ni li ngay wax ak wala boog li ngay jëf dafay wuute. ak li Cheikh Al Hadj Malick jëf. wala li mu waxe te moom jëfam ak waxam dara roy wuute ci ak waxe yonent bi sallallahu alayhi wa mhm. yow war nga seetaat sa bopp moo tax yow mi nga xam ni njaboot nga nga war a yëg njaboot dafay tënku njaboot dafay tënku tënku gi nag mooy nga xam ni Cheikh Al Hadj la la yàlla booleel nit yàlla yi bari nañu lool waaye yaa tànn Cheikh Al Hadj ni mooy sama buntu ci Cheikhuna Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu te la la Cheikhuna Tidiane yoroon moom la ko dénk ndax mag ñi mu jaar ci seen i loxo yëpp kenn ku ci nekk def nga déclaration di wane ni Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu li mu yor da lu jiitu ak ñëwam ci kaw suuf la ko la la lañ ko annoncé pour wan la rek ba tey gis nga yonent bi Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu roy gi mu roy yonent bi dafa dem ba nuróole ko ak lépp yonent bi ba ci lu jiitu muy ñëw ci kaw suuf bi mu ñëwee. dundam lépp amul lenn looy jël ndare bu di boo koy wax dañu yaakaar ne da ngay jëli Cheikh Hadj Malick di ko dendale ci kaw yonent bi déedéet maanaam teg gi mu teg tànkam ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko may mu àgg ci maqaama boo xam ni lépp loo gisoon ci yonent bi wala nga dégg ko jàng ko ci téere yi ñu wax la ko ci Seydina Muhammad boo ko xoolee ci Cheikh Hadj Malick daa ko ca fekk. mais daf koo nuru sax ba nuru ko ci yu bari. ci yëpp ba ci lu jiitu ak ñëwam ni yonent bi sallallahu gisul baayam Cheikh Al Hadj gisul baayam. yonent bi première abu Aboubacar la tudd monsieur El Hadj Malick première xalifaam Aboubacar. maanaam ba pare itam yonent bi xalifaam boobu di Aboubacar maamam Ousmane la tuddoon kii itam maamam Ousmane la tudd. noonu nga koy toppe di ko topp amul lenn loo xam ni da ko jeex di ko daj ci rasulullahi ndare bu di nga ko jeex ci kër Cheikh Hadj Malick fekk ko fa. loolu nag dafay duy sëkk ci njaboot mu xam ni bu amee boo amee ku cher am lu cher wala waayi da nga ngalawaay yow tam nga war a góorgóorlu ba cher. waaw da nga war a góorgóorlu ba cher lii tax nga cher nag mooy nga fexe ba teg sa tànk fa ko kilifa gi tegoon te nag ba tey tànk bi bi mu fi bàyyi woon ba tey jógu fi ba tey jógu fi ku fi toog rek li ma wax léegi ku fi toog rek di moom kon fa tabarakallahu loolu mooy li nga xam ni moom lañ ci idaafa ci li Seydina Ousmane indi léegi. jërëjëf euh, imaam Abdoul Aziz bég nañu imaam Ousmane. Tiwaawan dëkku leer la dëkku xam-xam la boo ñëwee da ngay fekk taalibe yi jàngkatu jàngkatu xam-xam yi mais zaawiye yi parce que wax nañu ni Seydil Hadj Malick bi mu demee Makka dafa jàppoon ci buumu Kaaba gi ne yàlla maa ngi lay ñaan réew ma la di Sénégal naa fa bari ay zaawiya foo toll di dégg nasaril xaq bil xaq lu mel noonu nan la ko Maodo réussir ci réew mi fexe ba njabootam daal jaamu yàlla rek ni mu fonkee jaamu yàlla moom Maodo mais noonu la amee jeexital ci njabootam. parce que dëkkam bi rek preuve la ci. waaw xam nga Oustaz Mouhamad Maulana Cheikh Al Hadj Malick lépp rek mooy ci xam-xam la koy teg. allahu mënoo ubbi jàkka te jàngaloo nit ñi. mënoo ubbi jàkka. te jàngaloo nit ñi. al madaris qabla al masajid école moo war a jiitu jàkk. mooy jëkk a moo war. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam madina munawwar waaw dafaa jëkk a yebal Musa Musa ab la fa jëkk a yebal mu nekk safir safiir ummati di jàngale diine laata yonent bi gàddaay mm-hmm. mu yàgg fa yonent bi gàddaay ñëw te jàkka amagu fa école mooy jiitoo jàkka est-ce que fu mu mas a nekk da koy def daara jàngale ndax ki ngay jàngal ngay pratiquer di ko jàngal su ëllëgee bu ubbee jàkka mu mën ko doxal dëgg la waaye jàkka jàkka ju rafet baax na waaye na doon ay na doon ay xaddeen na doon néegub ñax te ñu fay def lañ bëggal yàlla rek yàlla rek lañ fay defal yàlla rek moo ko amal solo. maanaam nañu ko dundal nañu dundal. néegu yàlla moo am solo dundal jàkka gi jàkka ju rafet. macha allah mi la fexe ne avant muy tabax jàkka mu tabax jëmm yi banal ashxaas qabla an yabnil masajid. waaw akbar jëmm yi la tabax ba Oustaz Abdoul Aziz Kane mën a nekk imam xatib ba pare mu soog a def jàkka ne ko dem fa. noonu nag la jàngale mu xaddam yëpp ba pare kenn ku ne mu yóbbu la béréb. samp la fa su la fa yóbbu béréb nga doon fa am Maodo su tabaxee jàkka wala nga rëdd ko wala nga sàkket ko mu nekk jàkka comme jàkkay urus ndax place bi bâtiment bi liñ ko tabaxee moog liñ tabaxee néeg bi benn la. Mhm. su jàkka ji wuuteeg néeg bi la ñuy def ci jàkka jaa tax. dëgg la de. kon nit ki ñuy tabax moo am solo bala muy dem foofu ca tabax ba mu ba mu war a junda mhm. gis nga booy tukki sëñ Mbay sëñ Babacar Si Abdoul Aziz da koy faral di wax suñu suñu sëriñ boobu yàlla yàlla gën koo sàmm dana wax ne aéroport salle d'attente bi ngay jaar aéroport moo la tax a tukki wala ne da nga fay jaar nga fay jaar rek waaye taxulaa jóg déedéet bu tàngee sax da ngay yàkkamti vol bi nee na min bar bi fi ngay nekk min bar bi taxulaa jóg da nga fay jëlee wol pour dem ci yàlla dëgg la waaye du fa moo la tax a jóg kon jàkka min bar la muntalax la li arab tudde muntalax mhm. fooy départ la uti yàlla waaye balañ koo defar nañ defar ki fi war a taxaw moo tax Mawlaana Cheikh Al Hadj nag jàngal nit ñi moo tax mu waxoon ne taalimuhum fardun walaw bi ijaaratin loolu mooy lan taalimuhum jàngal say taalibe mhm. jàngal say doom jàngal say ñi la topp fardun farata la bu yàlla gàll ci saw loos kon daal ku ne war ngaa jàngal ñi nga am waaw mu ne waaw nga ne ko bu ma ko mun mu ne walaw bi ijaaratin dem nga mënoo ko fayal nit mu jàngalee la ñooñ wa illaa soo difut mu lool faa alayka ne na ci saw loos al ismu ñàkk a ñàkk a jàng yow ma li xaa boo suñu borom. allahu akbar ndax lu tax bàkkaaru ñàkk a jàng boo jàngee génn wa maa yatasamma ghayra zil ilmi aabidan. Mhm. Maodo moo ne am ku ku jàngul mënuñu ko tudde jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne jaamu yàlla dana dana normal. jaamu yàlla làmbatu lay doon. nee na moo tax mu ne ki la topp nga jàngal ko safarata la donte dangay fay ko ko jàngal. ndax xanaa ci la waxee woon ni sëriñ dafa am ay charte pour nga nekk sëriñ da nga am condition yi. war xam nga daawa hiya al ilmu kon waroo tëb tëb rek nekk sëriñ. non non xam nga sëriñ du ci juddu. du ci juddu ay maayir la li arab tuddee maayir ay critères la war a doon. ay critères la doon damay faral di wax ne su fekkee ne ni aw xaaf di def ci ci réew naar yi aw xaaf nga xam ne bala ngaa nekk imaam dañ lay defal lijaasa ñu xam sa sa sa sa say diplôme ci xam-xam su fekkee ne noonu la ñuy wax ñi ñi ne nun ay sëriñ lañ ñi ko wax. am na ñu ko wax sama classe gi te duñu ko su doon ay test la yoo xam ne ci xam-xam la ñëpp dañuy doon dañuy dem ci rang gi ah est-ce que Cheikh Alhaji Malick dafa tëb dem ni man seriñ la déedéet lu mu woote jàngale rek kii jàngale mooy am moom mooy sëriñ sëriñ jàngale jàng sëriñ mooy jàngale sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa lan la woo sahaaba yi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ah yatlu alayhim waaw ayatihi wa yuzakkihim yatlu alayhim wa yuallimuhumul kitaaba wal hikmata wa in kaanu min qablu la fii dalaalin mubiin yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim toog wa wa yuallimuhumul kitaaba xam nga lu tax bu jiit wa yuzakkihim soog a tego yuallimuhum ah. nit da nga koy tasgiya ki ñëw ci yow am jikko yu yore da ngay fexe dindi jikko yooyu ci moom ba mu set nga soog koo taalim allahu akbar kon tasgiya bi mooy jiitu mooy mooy jiitu taalim boo nitu yàlla noonu la ñuy def dañ maanaam dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay ni ñuy def oto yi dañ lay tôlier dañ lay tôlier raxas dama nga set ñu sokkee def gasoil est-ce que gasoil da nga ak huile di nga ko def ci moteur moteur bu am salté déedéet noo koy def vidé ba mu set ba mu set wi nga soog caa def nga soog boo taalee mu de mu tàkk yu zakihim allahu akbar taski muy da nga naa ñëw ci moom mu xool sa xam ne sa xaal bokkut ak xaal bi bi war jëm ci yàlla mu taski la ba nga set wicc ba ñu ñëwee Tiwaawan mu wax ñu ne dënn géwél ak dënn mu ne déedéet géwél ak ak dënnam nan xotti dënn yi defar dënn yi xotti dënn yi ndënd yi ndënd yi nan tëggee nan ko xotti te defar dënn yi allahu moo gën a wóor defar dënn yi ba ñu teg rasulullaay tagkati rasulullaay yi ne Tiwaawan ak yi ne nekkul Tiwaawan li ñu am ci yonent bi lewut neexut daganut ahankay moo tagg lu gën a dagat tagg rasulullahi jeex na moo tax mu ne nan nan nan dënn yi dënn yi ñu tëgg nan ko fuq te tabax dënn yi allahu mooy kook mooy Cheikh Alhaji Malick mhm. fexe na jàngale mooy priorité moo tax tariixa Cheikhuna Tijaani boo ci bokkee rawatina nga bokk Cheikh kër Cheikh Alhaji Malick na nga def xam-xam sa xam-xam yittewoo xam-xam na nekk sa awalu shi'aar sa përëm yiir li ngay yiteewu mooy xam-xam ndax tariixa bii du tariixa a tariixa xam-xam la. diine ji du diine làmbatu. iqra bismi rabbika yàlla jàngal ko. Mhm. Seydina Mohamed bi ko yàlla ne iqra da ko ne kaay moo xal la da ngaa war a jiite ji ku war a jiite am mbooloo war nga leen a war nga leen a raw. iqra. bismi rabbika alladi xalaq. waqatahu li buluuxi ljahdi qaailahu oh, faqra wa qaala lahu maa daaka min nuzumi is karraral qatta marratin yaqulu lahu bismi rabbika antal xaatimu nuzumi kon xam-xam moo jiitu. allahu akbar. ba mu delloo. wan shir ashiratak al aqrabin ak yaa ayyuhal muzammil yaa ayyuhal mudassir yëpp wàcc ci kawam. kon mooy jiitu moo tax ku bëgg a doxal xam-xam bala maa bëgg a dee nga dégg nit mbooloo am ay ñu bari ñu ko topp mu ne man kii naa waaye jànguma ku jàngul loo jiite koo jiite. ku jàngul waroo jiite. waroo jiite waroo sag toppee sax dañ ko war a xoolaat. balaa sag toppee rafet nag am xam-xam ndax Maulana Cheikh Alhaji moom bi mu jàngale tali bi bu leen leen su ma defee lu wuuteeg li lu ngeen may wax dañ ko su leen dof la woon buñ bu defee leneen ñu ànd ko ca waaye di leen a bañ ñu jaar bala ngaa toppee ngay xam ba xam ne ki la topp bu jëmee furul noonu nga ko du foo suñu àndan di dem dakaar ma di la guidé te ngay xam Dakar ma xam Dakar sama oto jiitu nga ma wàcc jëm feneen nag ma naa ah sañ mi foofu du foofu de su ma tëyee nooy def avancé dem sama yoon bàyyi la fa noonu la nit war a nekk loolu xam-xam a koy jiitu moo tax Cheikh Al Hadj Malick tabax dënn yi te ubbi ay ubbi daara yi jàngal nit ñi avant muy teg def jàkka yi. jërëjëf euh, imam Ousmane bég nañu yaakaar naa ci ni mu indee Seydil Hadji malik ni mu defaree nit ñi Seydil Hadji Malick ni mu ko waxee sànq ak tazkiya bi muy def nga ñëw nekk oto bu paan El Hadji Malick diagnostiqué la xam ni yow kat lii nga paan Maodo réparé la ba paan bi deñ mu doog a def ci yow li muy def ci yow. yaakaar naa kooku mooy Seydil Hadj Malick imaam Abdoul Aziz wax naa imaam Ousmane ma ne ko Tiwaawoon dëkku leer la mhm. Tiwaawoon dëkk la boo xam ni yàlla rek lañ fiy séentu mhm. boo ñëwee moom nga fiy fekk mhm. Tiwaawoon daal li coow li bari bari Tiwaawoon yàlla ak Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais li ma ko laaj loo ciy dolli imaam Abdoul waaw li li dëggal kàddu Seydina Ousmane gi ak itam sa kàddu gi nga ko laaj Mm-hmm. li koy dëggal rek mooy Cheikh El Hadj Malick ñëwuk ci waawanam xam-xam moo ko fi indi. kon juddoowu fi. déedéet te daf doon wax ni moom Cheikh El malik bu doon ñaan boroomam fan la bëgg a dëkk danaa ko fa sama wayjur yane fa ma ganee àdduna waaye yàlla la soob mu xool Tiwaawoon ma doy ko fi mun mën naa ñëw nekkal ko fi moo tax mu ni Tiwaawoon këram gi du kër gu sant si kër gi kër yàlla la sant kon El Hadj Malick juddoo juddoowul Tiwaawan. déedéet déedéet pour wax la ni la moo tax bi mu ñëwee dafa teel a def maanaam Seydi Hadj Malick léppam daf ci dégager ay responsabilités am ba ci bi mu ñëwee ba mu wóor ko ni xam-xam bi taxoon mag yi Tiwaawan yi ñëw indi tànn ko di seet ku leen jàngal ba indi ko ñu natt xam-xamam yëg ni fa tabaarakallaahu li ñu doon wër am nañu ko ca la defee déclaration ba moom Seydi Hadj Malick bi muy woo njaboot yi alaa yaa bani haadha zamani daawtukum li ixyaai diini bil ulumi ajibu bi mu woo bi muy woo njaboot yi woowu leen ngir ñu bayal ko ay tool woowu leen ngir ñu def dajaleel ko ay hadaaya déedéet daf leen woo ni leen kaay leen kaay leen yéen samay ndaw yi jamono ba ñëpp daw wuy si ko mu ni leen ngir ñu dundal lu ñuy dundal daawtukum bi mu leen wooyu ba ñëw mu ni leen li ixyaa i diini leen rek la soxla pour ñu ñu dundal ko mooy dundal diine waaye lan mooy dundal diine waaye bila ulumi xam-xam muy li sëriñ bi waxoon léegi lépp loo mën a wax ak koo mën a doon di woote ci diine te amuloo xam-xam yow yaa bopp yaa boole sa bopp ci diine waaye bokkoo ci yow yaa boole sa bopp ci diine waaye bokkoo ci moo tax Seydi Hadj Malick radiyallahu euh, loolu rek dafay teg tegtale ni moom teg na tànkam fi mu ko waroon a teg ba mel ni mu mel ah. yar ci njaboot yi ba fa tabaarakallahu jamono boo ñëwee Tiwaawan tey bu njaboot génnee moo tax toujours dama koy wax njaboot yi nga xam ne ñoo nekk ci génération yi ma leen di wax ni war nañu fexe ba góorgóorlu ci seen àlluwa ndax koo xam ni boo génnee bu yónnee foo jógee nga ni tiwaawoon bu imaam nekkoon sa kanam waaw kay bu bu imaam nekkoon sa kanam sax summi darajay imaamam wékk la kay jiite kay nangam kay nangam kon war nga fexe ba loolee asaar yii tax jeexital yii tax ñu mën a dabu li ñuy dabu ci yow ngir dëkk ba nga jóge war na fexe ba bis bu nekk muy jóge ci askanale sa bopp Tiwaawoon war nga am xam-xam nga am xam parce que nag ñëwug Seydi Hadj Malick Tiwaawoon xam-xam la moo ko fi indi moo tax kër gi xam-xam ah, dafa ñëw ñu téye ko ñu téye ko boobu lu ko fi indi jàngale booba fexe na fekk na booba comme ni ko Seydina usmaan waxee léegi fexe fexe na ba peeg mbooleem xeeti xam-xam yi lenn lu ci nekk mu nekk ci baxaru mu nekk ci géej lépp mboolem fànn yi voilà maanaam maanaam xam nga kër Seydi Hadji Malick ngay ñëw fekk daara joo xam ni mboolem xeeti fànn yi boo ñëwee ci biir daara ji fekk ndaw yi di ko jàng. mai loolu sëñ Babacar si waxoon na ko. waaw kay ma ngoog. nasabta fi gharasatiha. xiyamu diya. wallaahi innal ghawaamida. waaw milaabu sibiyaani. sibiyaani bu ko defee loolu. loolu sëñ Babacar see ko waxoon. yàgg na radiyallahu taala pour wax la ni la. Mhm. kon loolu mooy lifi fi ne tey mooy li fi Seydi Hadji Malick bàyyi ak li ko fi indi woon ñun ñi nga xam ni tey ñoo taxaw ci wetu kilifa yi di leen jàppale war nañu fexe ba dimbali njaboot yi ci ñu jàng ndax mooy tax nag bu ëllëgee drapeau bi du laal suuf. waaye bu fi xam-xam jógee rek musiba am. te kër Seydi Hadji Malick bu fi xam-xam jógee mu mu yem ak kër yëpp ndax leneen loo fi woote rek am ah, boo demee ci gëneen kër gu mu doon am fekk fa ku la ko waaye nag bu dee ci xam-xam ak sunna boo ñëwee kër Seydi Hadji Malick moom lii suñu mag ju baax ja daan wax Serigne Habib Sarr naan naññ gaaññi. Maodo moom Seydi Hadji Malick ñaar yooyu la. mën ngaa am lu leer ne gaaññi waaye bariwul ba ni gaaññi ba ni gaaññi. mën ngaa am lu bari mais leerul ni naññ. déedéet gaaññi naññi Alaaji Malick Alaaji Malick. allahu akbar radiyallahu taala anhu. macha allah gaaññi naññi Seydil Hadji yaakaar naa aaya ba yàlla waxoon ni wattaqullaha wa yuallimukumullah. boo ragalee yàlla yàlla def ci yow xam-xam ragalam yàlla moom Seydil Hadji malik moo tax yàlla defal ko li mu ko defal digganteem ak Seyduna Muhammad cofeel bi mu am ci moom bëgg ko mais boo xoolee El Hadj Malick li bind bari na. mais yaakaar naa xilaasu zahab bii yem na gaa yi de. xam nga bu ñu duggee ci mbirum Cheikh Al Hadj Malick boo sàgganee temps bi dana nu dana nu xoj. ndax Maulana Cheikh Al Hadj Malick. al amaan al ilmi mais xam nga El kenn mënu koo waxtaane waaw. moom guddi ànce yëpp boo ko jëloon taxul nga. une semaine sax mënoo ci waxtaanee. El Hadj Malick Oustaz Mouhamed li may yéem ci El Hadj Malick imaam Busayri digganteem ak El Hadj Malick ëpp na juróomi téeméeri at. ëpp na ko. ndax diggante imaam Busayri ak si Seexuna Tijaan yi ëpp na ñeenti téeméeri at. nga xam ne ca mag ña a bokk. Maodo ñëw fekk téereem bii muy burdu mu def ko bokkut ak moom waaso. kee ab égyptien la. ndëkk Égypte ñu suul ko Iskandariya boo demee ci jàkkam ñu ngi ko suul ci biir jàkka mu gis ne téere bi kat téere la boo xam ne tagg na ci yonte bi te baax na neex na oh. mu jël ko di ko barkeeloo su doon ni dafay fanatisme da doon woo al asabiyatu bi nafs mm-hmm. danaan xilaasar trente buntu la wax dëgg yàlla ren nañ jël fukki buntu yi bu dee nañ jëleen fu bu ko defee ñetti at yu ne xilaas bi jeex xilaas bi daanu waaye dina déedéet jël li ma def di ko favoriser amaluma njariñ fekk naa nit ku baax muy nitu yàlla donte jëmante wu mag ma donte teguma ko bët bokkunu continent bu nu dëkk bokkunu aw xeet muy ko xoog may ku ñuul. ñi ko siiwal ci réew mi da ci la bokk El Hadj Malick. la wax ñett. ñett lu ñu am tax réew mi xam bu sey ri El Hadj Malick ci lu ñu am danañ ci may jox si El Hadj Malick. kan ak kan. Mawlaana sallallahu alayhi wa mhm. ndax moo ne man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu nee na ku def sunna bu rafet am nga peega te du yàq ca peeg ko def wa ajru man naasiril xaq bil xaq yi am ci kaw suuf ak Seydi Hadj Malick ñi mu ñi mu jàngal ci xam-xam ñaata nit la jàngal allahu ba ba chariatu na Mohamed bi des ci kaw suuf muy benn Cheikhuna Tijaani lu mu am ëllëg dana ci seen Cheikhul Hadj Malick ñaata naasiril xaq bil xaq la ñuy wax par suba ak ngoon suñ paree ñu naan haadi hadiyatun bi fadlillah tudd Cheikhuna Tijaani tudd yonent bi minna ilayka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kan moo def loolu Haj Malik muy ñaar imam bu seyri ëllëg lu mu am ci burdoom bii ñuy wax Mawlaay Salim ba addinay tukki dana ci jox Alhaji Malik wala azim ma ñu Allah bokkuñu fuñ dëkk bokkuñu jamono bokkuñu waaso mu mën a jël burdoom bi bis bu ñu xëyee jàng burdu te heure boo ne Mawlaay sallallahu alayhi wa sallam yàlla jël leer boobu sotte ko ci ruux Seyd imam Busiri ndax moo ko taalif ci yonente bi. te du yàq ci yoolu Cheikh Alhaaj Malick bi ko keeree. dara yool bu tol noonu kan moo ko mën a génn ci ko suuf. xam nga imam Busiri li mu def bari na. téere yi mu bind. mais pour man pour man burdatul ma deex rek la bind. xam nga moo def hamziya ah moo bind Hamziya. moo bind am na laamiyam bu mu def ci na moom ñaari ñaari téeméeri la def ci laamiya ba tagge ko Seydina Muhammad. mais xam nga burdu bi kon El Hadj ko may bës. dama la ne moo moo tax ñu xam ko. bur bur Hamziya ngi ni kenn burdu moom El Hadj Malick ko may bës moom. waaw moo tax ëllëg lu lu ci imam Busayri am dana ci jox El Hadj Malick wàllam. Oh. ndax nag ak son boo bokkoo ci benn usine. nekk ci actionnaire lu fa génn ci recette da nga am. mais burdu bii nag El Hadj la ci. fexe na ba réew mi foo toll di dégg Mawlaaya salli wa sallim daa iman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihi. waaw uh, Oustaz Mouhamed damay wax foofu rek. Mhm. yonent bi nee na ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukk. ku julli ci man fukk yàlla julli ci yow téeméer. ku julli ci man téeméer yàlla. junni julli ci yow junni. waaw ku julli ci man junni yàlla araamanal sa sa sa yaram sa wara buntu burdu boo jël bis bu ne nga wax Mawlaaya salli wa salaam su buntu boobu jeexee ñaata Mawlaaya salli nga julli ci yoon bi. allahu akbar ñaata ñaata salaatu ala nabi nga def. benn saxaaba ñëw ne ne yonent bi dama lay defal sama sama samay julli dama lay defal genn wàll gi mu ne ko ah, bu la neexee boo yokkee itam mu gën ci mu ne ko ba defal la ñaari mu ne ko ah, bu la neexee boo boo yokkee mu gën ci mu ne ko kon sama julli yëpp te ma ko def ci yow mu ne ko kon boo def boo ko defee yàlla fegal la njàqare addina fegal la njàqare alaxira yóbbal sa wërsëg may la fat. oh macha allah imaam bég nañu yaakaar naa li ñu mayoon ci waxtu jeex na. Mhm. Seyduna Muhammad a ngoog sallallahu alayhi wa sallam. Seydil Xaaji Maalik a ngoog jàmbaar ji mhm. yaakaar naa wax naa ko sànq bu nu doon waxtaanee Maodo fii ba suba. Mhm. kenn du doyal ci ñu koy seetaan. tey nag ñu dalaloon ñaari borom xam-xam yi nga xam ni mooy imaam Ousmane imaam Abdul Aziz yaakaar naa ñi doon seetaan ñëpp bég nañu ci lan xam-xam bi nu taataan. ci diggante Seydil Hadji malik ak sunna mais diggante Seydil Hadji malik ak ay njabootam ni mu fexee ba réew mi naasiril xaq bil xaq saf sap moom Alaaji malik ni mu fexee itam ba yaatal diine ji fexe ba ni ko imaam Ousmane waxee imaamul Busayri yu ñi ko xamoon bariwul Alaaji Malick fexe na ba nu xam ko burdu ci boppam Alaaji Malick actionnaire la ci bu dee Busayri yu di fayeeku ëllëg fokk Alaaji Malick am pourcentage <laughs> ndax nag def na ko ci réew mi ñaanal ko moom Cheikh Al Hadj Malick yal na yàlla yokk ay leeram imaam Ousmane yaakaar naa leen ñu mayoon ci waxtu jeex na looy tàggatoo xanaa rek di nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di leen balu xaq di jiital fii nuyoo bi suñu wayjur suñu xalifa ba sëñ Babacar si Mansour moog rakkam ju baax ci sunu soppi Cheikh Al Hadj Malick si Maodo di leen ñaanal njaboot Cheikh Al Hadj Malick yal na yàlla yàggal leen fi sàmm leen aar leen di dugal nu ci di nuyu suñu mbokk mu baax bi nga xam ne moom moo teewee jitaay bi mu Oustaz di nuyu itam suñu suñu suñu soppee suñu xarit Oustaz Xasan si mi nga xam ne tabaarakallaahu sëriñ Sidi Ahmed moom Abdoul Aziz sëriñ mhm. moom la jox amaana bi ci ndigalu sa euh, Abdoul Hamid euh, si mu sëriñ mhm. Abdoul Aziz Al Amin ci ndigalu xalifa bi fu ñuy doxal lii ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla defal nu jàmm di nuyu suñu rak suñu doom bàyyi suñu xarit Oustaz Abdoul Aziz imam nga xam ne imam la turandoo sëriñ Abdoul Aziz Al Amin la min bokkat jitaay bi ci yàlla ci yaram ak teeyam ak xam-xamam di wax ne daal waa axiru daawana an alhamdulilahi wa rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf imaam Ousmane Moulay Abdoul Aziz lay tàggatoo eh, tabarakallahu xanaa rek di feeñal mbégte surtout fii sama mag ji daanelee léegi ci euh, buntu euh, maanaam burdu bi ngeen doon wax léegi nga xam ne rek foofu dafay wane modeste bi nga xam ni moom la Seydi Hadj Malick amee mm-hmm. parce que ku nitu yàlla bu doy ni Seydi Hadj Malick ak li mu def ci yonent bi yëpp mu mën muñ loole yëpp feeñal mbindu kaneen koo xam ni jamonoon leen loolu modeste fa la yem doo gis benn nitu yàlla bu jëfandikoo jëfandikoo bu rafet boobu keneen koo gis mën na am nga gis ci leneen mën na am sax mu barkeeloo comme ni ko Seydi Hadj Malick defee waaye ni mu ko defee moom doo ko gis fenn fudul fii jox ko lépp bi ci des itam mooy pour wan la barke bi nekk ci burdu ñu bari dañu jàpp rek mooy burdu bi xam nga lii gën a siiw mooy ni ñu koy firee maanawiyan waaye am na lugawiyan waaye am na yitan as a ah, ah, waaw waaw baatini yen boobu ci gën a garaw ñu bari xamuñu lool dañu jàpp ni rek burdu burdu bii la waaye am na baneen bu nekk ci biir boo xam ne tabaarakallaahu te boo ñëwee fii ci kër Maodo daa ko fi fekk pour wan la ni la Seydi Hadji Malick loolu rek dafay doy tegtal ci ni kilifa gu mat kilifa la parce que kilifa gu mat kilifa mooy bàyyi lépp lu mu yoroon wane laneen loo xam ni moo li mu yor benn la amul loo ci settee lépp lu imaamul Busayri wax ci Euh, yonent yàlla Muhammad wax na ko ci yonent yàlla Muhammad waaye loolu yëpp da koo muñ ndax lan di dabu rek barke bi nekk ci burdu ndax bi mu koy way moom Muhammadul Busiri ba si fa mablagul ayni fiihi annahu basharun moom doo nga am rasulullahi ñëw yeggaleel ko satar ba ni ko wa ko xayru xalqillahi kullihimi loolu rek dafa war a da dafa war a doy sëkk sëkk ci def tabarruk ci euh, ci burdu fa tabarakallah kon loolu dañ koy sant yàlla bu baax a baax uh-huh. waaye itam dellu sant la bu baax itam sant kilifa yi ñu yebal ndax ñu ngi fi ñëwee ci tuuru xalifa bi Cheikh Seydi Aboubacar si Mansour al xalifa ak njabootam yëpp mu jaar ci Cheikh Abdoul Hamid si mu jaar ci rakkam yu baax yi ba ci Serigne Sidi Ahmed ba ci Serigne Hassan mi nga xam ni moom mooy euh, moo yore amaana bi comme ni ko kilifa gi waxee ñu sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla yal na yàlla dëgëral euh, télé bi euh, jëmee ko kanam liggéey bi nga xam ne yéen a koy liggéey jëmee ko ci diine ji ak a taxawaay yu rafet yi nga xam ni yéen a ngi koy def ci seen kër maam ji fa tabaarakallaahu nga xam ni kenn ëppalewu ci kenn la ci mhm. ci biir ak ci biti mhm. ñun xam nañu la gis nañu itam jéego yu rëy yi nga xam ni yaa ngi koy def di ko jëme ci këru diine ji yëpp mhm. waaye nag rawatina fii nga xam ne mooy sa naanuwaay muy kër Seydi Hadji Malick kon Fall ñi lay sant di la ñaanal di sant mboolem ñi nga xam ni ñoo nekk ci wàllu technique bi di leen ñaanal yàlla wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf imam Abdoul Aziz yaakaar naa mbokk yi leen ñu mayoon ci waxtu jeex na ak télévision Futurs Médias dara du leen raw incha allahu taala ni ko xalifa bi bëggee noonu la ñu koy defee mooy na ku nekk toog këram ñu wéttali konte ak yéen ci Seydouna Muhammad yaakaar naa télévision Futurs Médias jël na ay matukaayam incha allahu taala fu ngeen mën a ne ci réew mi da ngeen toog ci seen saal mais di dund gàmm gi di dund Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag télévision Futurs Médias moo leen koy defal incha allahu taala yeneeni palaato yoo xam ne da ngeen di toog ci seen biir kër di ko am incha allahu taala bis bu nekk ba keroog ñuy dugg ci bis ba nga xam ni cala sangu àddina ak alaxira juddu woon te mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu joxaat leen dig daje ci yeneeni plateau incha allahu taala nuyu Abdoul Aziz Aly Ndiaye ñaanal ko bu baax yal na ko yàlla yokk dëgëral ak mbooleem ñi koy jàppale ñëpp mbokk yi ci kanam lay doon incha allahu taala ñu ñëwaat ak yéen ci yeneeni plateau wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ya Muhammad ya habibi ya Muhammad kun tabibi wa ajirni min laybi inna